ñu ngi ñëw léegi suñu xutbatul jumaa allah xutbatul jumaa bi nag ay abiyaatu Mawlana Cheikh Ibrahima la mu ko doon dénk taalibe yi moom Baay radiyallahu anhu ca Koosi booba jafe-jafe yi bëri na nattu yi bëri na tëkku yi bëri na itam xat yi bëri na dégg nga ñu leen di xéeféerloog lu nekk Baay di dénk taalibe yi mu ne talaamidatu Cheikh Tijaani fasbiru ala kaydi ala kaydi aadaa yi mada dahri tunsaru fama darakum jahlal juhuli wa qawlihi walaw badu aw fasaqu thumma kafaru fala yaxzunanna dahra qalban maqaalahum walaw awacadu fal amru lillahi fasbiru siwaahu daifun aajizun gayru qaadirun walaw julla qadran fal ilahu muqaddaru wa aqibatu mahmudatin la yuniluha siwa amalu taqwa xafafullaha wasbiru fa urwatu rabbil arshi wusqa wa innana biha mumsikuuna dahra fustum ala shukuru araakum mulukul ardi la shakka fazhadu fa duniya ka axlaamil manaami tubsiru alaykum bi tahdibi nufuusi wa aridu an illaxwi xatmun in yakunu lmuqaddaru lana uswatun xasana fi xayri mursalin alayhi salaatullahi maadaama yunsaru Baay radiyallahu anhu mu ne yéen taalibi Cheikh Tidiane yi talaamidatu cheikhu tijaani fasbiru ala kaydi aada imada dahri tunsaru mu ne yéen taalibi cheikhu tijaani radiallahu anhu na ngeen muñ ci lan ngeen di muñ mu ne ci pexeem noon yi mu ne diir ak jamono nag yàlla dina leen dimbale waaw yàlla dina leen dimbale fii dafa mel ni Baay dafa garanti taalibe yi ne na ngeen muñ rek ci pexeem noonu yàlla dina leen dimbale kon taalibi cheikhu tijaani koo xam ne wóor na la ne yow taalibi cheikhu tijaani nga bu nekk ci ginnaaw Cheikh Ibrahima an anhu xamal na yow yaa ngi ànd ak garanti Cheikh Ibrahim parce que dafa wax ne dégg nga fas biru ala kaydi aada in mada dahri tunsaru na ngeen muñ ci pexe noon yi diir ak jamono dinañ leen dimbale bàyyi teg ci ne fa ma darrakum jahlul juhuli wa qawlihi walaw bada'u aw fasaqu thumma kafaru mu ne du leen lor mukk réer ak ñu réer ñi yaa ngi dégg mu ne ak seen wax yi dégg nga mu ne donte nag sosal nañ leen wala ñu ngi leen di yàqal da nga di indi yëfu fas seq ci yéen wala ñu leen di xéeférloo sax mu ne loolu dara dara marut leen ci loro bu leen bu leen bu leen maanaa du leen lor baa mu ne falaa yaxzunanna dahra qalban maqaalahum walaw awaadu fal amru lillahi fasbiru baay radiyallahu anhu mu ne bu leen am benn tiitaange bu leen am benn njaqare bu leen am benn tristesse diir ak seen jamono nag dégg nga mu ne ci seen xol yi bu leen ci am tiitaange wala njaqare wala dara yaa ngi dégg diir li nga xamante ne yéen a ngi ko dund ci jamono yaa ngi dégg mu ne eh, eh, moo xam ci seen xol maanaam seen wax yi dégg nga bu leen am benn njaqare ci seen xol yi tukkee ci seen wax yi ñoom mu ne donte nag tëkku nañ leen sax mu ne na ngeen xam ne mbir mi yàlla la ñeel te na ngeen muñ mbir mi mbiram yàlla la loolu nag ñun ñëpp war nañ ci jàngee xataa taalibe ku fi nekk di tëkkuwante ak sa moromu taalibe dégg nga na ci bàyyi xel nga bàyyi garanti na ay taalibeem yaa ngi dégg ne bu leen am benn njaqare bu leen am benn tiitaange ñeel ñi nga xamante ne ñu ngi leen di tëkku wala ñu ngi leen di noonoo dégg nga mbir mi na ngeen xam ne yàlla la ñeel te na ngeen muñ dégg nga mu ne si keneen ku dul yàlla nag daifun aji lottu nga dégg nga mu ne aajizun aji tele nga xeeru qaadirun amoo benn kattan munoo dara waaw ku dut yàlla munoo dara ku lottu nga ku tële nga mu ne walaw julla qadaraan mu ne donte nag mboolem kàttan yi dajale nga ko fal ilaahul muqaddaru na nga xam ne yàlla mooy kii kàttanal kenn ku nekk loo am yàlla moo la am loo moo la ko mën loo ko attan loo kon kenn mënu fi dara dégg nga mu ne wa aqibatun mahmudatun laa yuniluha siwa amalu taqwa xafifullaha wasbiru baay radiallahu anhu mu ne mujj gu rafet nag mujj gu rafet mujj gu ñu sant mujj gu ñu gërëm mu ne kenn munu ko am lu dul ci jëfu ragal yàlla dangay ragal yàlla d'abord yaa ngi dégg jëf ci jëf ju rafet dégg nga mooy loolu moo tax ngay am mujj gu rafet loolu moo tax itam yaa ngi dégg nga am jëf yoo xamante ne yu ñu gërëm la dégg nga bàyyi mu ne nangeen ragal yàlla te na ngeen muñ dégg gis nga bayit bu boo ci gis rek dégg nga dugal na ci baat muñ li ci gën a bëri dugal na ci baat muñ mu teg ci ne fa urwatu wa na aw wa annana biha mumassikuna dahra fustum allah askuru bàyyi mu ne buum ak yàlla bi buum bu dëgër la te du dagg mukk dégg nga mu ne naka ñun ci lañ ngëpp ci buum boobu noonu lañ ngëpp ci lañ jàpp direk suñu jamono mu ne texe ngeen denga xanaa du ngeen sant yàlla allah askuru dégg nga fustum allah askuru texe ngeen waaw xanaa du ngeen sant akay bàyyi teg ci ne araakum mulukul ardi la laa shakka fazhadu fa dunya ka ahlaamil manaami tubsiru dégg nga bàyyi mu ne gis naa leen ngeen nekk buuru kaw suuf si yéen samay taalibe gis naa leen ngeen nekk buuru kaw suuf wala taalibe Cheikh Tidiane yi lay waxal dégg nga te ñoom ñooy taalibeem rek mu ne laa shakka fazhadu amut sikk ne faw ngeen dëddu àddina nag kon nga jàng ci ne nguur képp ku ko bëgg da ngay dëddu àddina waaw da ngay dëddu àddina euh, euh, surtout nguur ak yàlla gi am na feneen fu mu waxee ne waha wa hadaka al mulku laa yubaau bi kulli mulukul ardi naamat uyunuhum wa hadaka al mulku laa yubaau bi bi dirhamin mu ne wax leen buuru kow suuf si seen bët yaa ngi nelaw radiallahu anhu mu ne wax leen buuru ko suuf si maanaam ñi nga xam ne ñu ñooy ñoo yore nguuri àddina yi mu ne wax leen leen ñoom seen bët yaa ngi nelaw mu ne xool leen nguur gii nga xamante ne kenn du ko jëndee dërëm kenn du ko jaayee dërëm itam maanaam du da ngay am nguur googu noonu te nguur googu mooy nguur ak yàlla yaa ngi dégg loolu la loolu la wax ni ñu bàyyi ci xel dégg nga moo tax mu ne <coughs> euh, mu ne gis naa leen ngeen nekk buuru suuf dégg nga mu ne waaye amul sikk faw ngeen dëddu àddina dëddu leen àddina mu ne duniyaa bii àddina bii ka xalaamin manaami tabsiru mu ne àddina bi mu ngi mel ni gént ci nelaw rek waaw da ngay rek nga xool ngi nga gis noonu la àddina bi mel mu ngi mel ni gént waaw lépp lu fi nit yaakaar ne am na ko fi wala moom na ko fi moom fi dara da ngay benn bis rek nga xëy yeewu feneen nga xulli rek gis yëf yi mu ngi soppeeku wuute ak fa nga nekkoon allahu akbar dégg nga loolu na ci ñëpp bàyyi xel dégg nga moo tax mu ne adduniyaa ka axlaamil manaami xam nga nit suy nelaw mu gént mu ngi yore un million wala cent mille mu gént ko digis nga ni mu banquee loxo bi waaye xoolal bu yeewoo yaa ngi dégg dafay mel ni day mere boppam sax yaa ngi dégg noonu la àdduna bi mel mu ne àdduna bi boo ko boo gisee li fi nekk ma nga yaakaar ne lii yow moom nga fi dara wala am nga fi dara yaa ngi tardel sa bopp da nga bis dina yeew dina xëy rek nga xëy rek xoole fekk fii <laughs> dara dara nekku fi mu ne aleykum bi tahdibi nufuusi wa aridu an illaghwi xatmun an yakuna al muqaddar <coughs> mu ne maa ngi leen di dénk ngeen yar bakkane waaw problème yépp bokk na ci ñàkk a yar bakkan te yàlla waxoon na loolu ci alquran yaa ngi dégg yàlla waxoon na ne dégg nga faqtulu anfusakum zaalikum xayrun lakum inda baariikum rey leen seen bakkan yi loolu mooy li gën fa ci seen borom yaa ngi dégg kon dëgg-dëgg nañ yar bakkani yi itam parce que képp koo xamante ne sa bakkan yaruwut dégg nga rëccut rek la lay indil nañ yar bakkan yi mu ne na ngeen woon ginnaaw itam caaxaan yi wa aridu anil laxwi nañ woon ginnaaw caaxaan yi dégg nga caaxaan baaxut dégg nga mu ne nekk mu nekk loo xam ne nag euh, euh, euh, duut lu jomb lu war a nekk la waaw duut luy jomb de déedéet lu war a nekk la dégg nga waaye rawatina nag loo xamante ne nag yàlla moo ko dogal d'abord dégg nga loolu moom loo xamante ne mustahaal la dégg nga maanaam lu jomb la loo xamante ne yàlla mun na ko dogal yaa ngi dégg su ko defee loolu moom yow munoo ci munoo ci munoo ci rëcce dégg nga mu teg ci ne la dégg nga fii xayri mursalin alayhi salaatullahi maadaama yun saru ni nga mu ne ñun am nañu royukaay bu rafet te mooy yonent bi sallallahu alayhi mi gën ci yonent yi mu ne yàlla na yàlla dellu ci moom xéewal subhaanahu wa taala dégg nga feek mu ngi sax ñu koy dimbale moom yonent bi dégg nga sallallahu alayhi wa sallam kon ñu góorgóorlu bu baax bàyyi xel ci ci ci ci waxu Mawlana Cheikh Ibrahima boobu noonu nga xam ne mu nekk wax yu am solo wax yu am importance wax yoo xamante ne dafay jàjji bi ngir mu dëggu ci li mu nekk yal na yàlla dimbali ñu yal na yàlla jubal ñu yal na yàlla reyal ñu bakkan yi nga xam ne dañuy sonal dégg te mooy bakkan yi ñuy digal lu lu ñaaw yaa ngi dégg te mooy bakkan yi nga xamante ne dégg nga daf ñu mooyloo suñu diggante ak suñu borom yal na yàlla nootal ñu yooyu bakkan wa ma zalika ala bi azizin wasalaamaaleykum wa rahmatullah allahuma salli ala sayyidina muhammadin haqqa qadrihi wa miqdaril azim jumaatun mubaraka daayiratul fadli kuñ formé war ngay sant yàlla ñun la sigil ke salaam sidi baram